Furor dugg fii rek sa furor dugg fii rek no karga bi no furor no karga bi furor bi la am kay dëggal waaw waaw mbër la waaw. Boy Niang te dégol ñëw na mu ngoongu sol ma Sénégal bi ñu ngi sotti xorom si def ko ci leket Talla Ndiaye leket a ngoongu mu ngay sotti de xorom sa mu ngay sotti dem di sotti dem ay madun ne nañ ko doo taxaw fii yow ne ko doo taxaw fii dañ koy aaye mu taxaw fii xaw ma lu xew cëy làmb taala jëlal loolu ab la de gerte day tutal koy curuxu curuxu laa ilaha illallah danañ ko taxawal ni xool bagage yi gi lépp ngi wàcc wure ba day dem këng waxi mag kii de xanaa kii de mën naa togguk mbana laa ilaaha illallah waaye yéen fruit baa ngi noonu balla segga ngongu laa ilaaha illallah waa taal xool café bi ci taala waaw nee na ñëw jóg ci kaw. ak ay ay bale ak balance PCO ah loolu dafa rëy de Talla Ndiaye loolu daa diis de am na lu waaj laa ilaaha illa salaay la moo gis jat bi am na lu muy jaat am na lu muy waaj booy ñaam mi Babacar waaw xam nga ne fii mu dugg nii mooy mbër mi fi njëkk a bàkku loolu am na moo fi njëkk a kom mbër mais lu wóor ndeysaan am na lu takk ca jëba booy nanga ngongu taxaw frère naa la. Euh, maa la raw. le moral. est bon. parce que néew ma ni maa fi gën la mais préparation bi mooy différencier mbëri <laughs> te am nañu préparation bu baax ndax waxoon naa la ko. <laughs> tey jii xam nga tey fi ñu toll mënuñu kenn mënu tëb wax ne jiw mooy daal. mais xam naa ni képp koo xam ne amateur euh, supporter bu Boy Niang <laughs> di nga kontaan parce que dinañ def ambiance dinañ bëri lu dañuy am victoire incha allah feete ko bugg ba ci kanam. di ñaan ci barke Cheikh Nassir Sall ci barke Cheikh Mohamed Fall suñu borom dañu ndam. waaw naa fii fii xam nga nag dafa li ma ci fàttaliku mooy maa fi njëkk a dugg ko mbër. maa fi njëkk a dugg ci mbër man lañ fi njëkk a invité. yaa ngi rappelé wu. waaw maa ngi ko. tey ku nga njëkk fee dugg ko mbër tey nga fi bés bu mag. ngay mbaru Pikine mën naan ne bu fi njëkk am bis bu mag tey loolu lu mu lay def. ndam bu jeexee jeex na. bu jeexee jeexee dal jàmm. père. Sénégal nga may. naaw ñi ñooy sapeur pompier yi ñooy fay lakk gi ñooy sauver ñi soge ñi ku am problème rek ñoo ci gaaw kon tey su la neexee sax tey fii laa koy ubbee sauver ou périr la ñu wax maanaam dañuy sauver bakkan rek wala seen bakkan du ko fekkee ñu ngi nii gis nga di defar raa yi taala raa yi daa war a jub ñu dugg ci arène nationale bi boo xamee walla nga kiris wala yaa xam lu dal ñu sauver la sapeur pompier les soldats de la feu yaa ngi dégg kon ñu leen di nuyu ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw taala di defar raa yi soldat yaa ngongu jaay ak leen sécurité bi xoolee di leen lijjanti nga jàkkaarloog ndeysaan gis nga verte bi technopole baa ngoo nguy verte gis nga ndox mi li yëpp ci technopole bi la bokk ci dex gi waaw waaw yaa xool tali bi gis nga oto yi circulation bi alburax even sak Baye Ndiaye Lac de Guiers 2 Boy Niang combat bu doy waar bëggee. koo ànd ngeen di xaar ci combat day gaawal day. non mu la guerre da nga koy taxaw déglu ko ndax ne mooy mag bi daa yor mi nga doon di wax ñu naan ñu koy déglu na saa yi mbër xam na la yebee tembo tembo rek yoo xam ne jëloo dañuy yor nang nang bu jeexee jeex na la guerre du la may dërëm dërëm du la ko may loo ñu may yow ko pigi nag baay. loo wax yow ko àndal. ñu ngi ci Boy Niang 2 affaire bi Boy Niang la. waaw ñun ay pili la la guerre la. dëgg la Boy Niang 2 su ko jàppee lamb ji jeex. la guerre bu ko jàppee lamb ji jeex ñun la barki Serigne Touba Mbacké bu ko jàppee lamb di teer la ngeen da koy daan la ngeen da koy daan bu ko jàppee lamb yi jeex Babacar man daal Balla Gaye faral kum faral laa faral gaay yi bàyyi Ama Baldé Ama Baldé mu Pikine moo ko moom Pikine ay waxkat yu nekk fii wax Boy Niang mooy bëre waaw mais xam gars yi nag fii. Pikine Ama ak Boy Niang lañu wala. benn lañu mais xam rek. Ama Boy Niang benn lañu mais Boy Niang du benn. dañuy siisu. Pape Sarr Pikine mooy docteur bi. dama la bëgg a xamal ñaari baat nga xam ko. Balla Gaye numéro 2 mooy star u mbëri. Balla ku ànd moom. ku ànd moom dañ caa war a niin bat takk ci rip. Balla Gaye képp kuy ànd moom coow moo ko topp képp kuy ànd ak moom coow da lay topp Ama Baldé coow moo ko topp. jaaykat bi ne day ñaxtu taala lu leen naqar yéen ñun li ñu metti mooy ñun dañuy ñëw ci stade bi dañuy jënd ticket dañuy dagguloo daggloo ticket 3000 ñu dugg mais dañu bàyyi ñu yéeg ci kaw tribune suñu jaay ni ñu ko indee noon lañ koy delloowaatee est-ce que tribune bi dañ ciy tere ku jaay ah mais ñu raison de sécurité est-ce que du looloo tax mais sécurité mais xam nga jaaykat yi ñun tam ñun defuñu dara non maanaam ñuy jënd bagage yi di ko sànni ñu ci suuf xëy sa loolu la ñuy bañ waa mais loolu xam nga loolu borom canette yi lañu war a waxal mais ñun xam nga ñun jaaykatu crème yi jaaykatu ndox yi mooy. man dama doon gis Demba Diop ñu sànni ay canette ak ay crème. ah waa mais loolu la waaye tamit nañ ñu bàyyi rek ngir yàlla ak yonent bi ñun dañuy liggéey rek dañuy jaay. kon wa gaa yaa ngi leen di dégg xëy na nañ ci jël solution. dinañ ci wut solution ndax ñun amuñu leen lu dul njaay mi. ngeen ñu ngi lay bëggee. tey ngeen am bis bu mag waa Guédiawaye nu ngeen duggee tey. waaw bis boo xamante ne maanaam teg nañ ko fi ñu ko war a teg bis boo xamante ne maanaam fonk nañ ko bis boo xamante ne maanaam daf ñoo jaral loo xamante ne maanaam barke Seydouna Mohamed lu doy waar la maanaam bis boo xamante ne fi mu toll nii a war a manko ñëw jàppale Lac de te combat bi nekk na combat boo xamante ne maanaam barke Seydouna Mohamed jàmbaar dañ koo bëgg te yemale wuñ ko benn combat ndax combat bi risque la ci ñun dafa doy waar quoi combat bi lu mu jarul ci àdduna amul yàlla mi nga xamante ne nag moo yor ndam mooy xool ku ko neex mu joxoo ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu defal ko Lac de Guiers tax Lac de Guiers 2 yàlla na ko suñu borom defal ndam. waaye dañuy am ñaari mbër. yow yaa tuddati nan. man may xadi bu Ngunjaan. yow. Ndey Jonn. waaw boo dëkk ci Ngunjaan Cangaay. Cangaay. ana dëkk Mbour fii waa Cangaay lañ mafia bi la mafia bi ñun la waaw kii moo indi day super jamono. yal na ko yàlla may ndam ah bu set wicc daal yaa ma gën a xam ñaar ñaari mbër yu mag yi nag que le meilleur waaye kiri waaloo ngongu ëmb ko di ko andi laga ngongu yu ñëw ne ci benn 4-4 Toyota boo xoolee seize heures vingt-cinq minutes la dugg ci làmb ji waaw bëgg masa taa ngi wax Masada dem na de taala Ron Sall ngonguy gënaat mook Masata Njaay eh mais jar la de maam nga jàmm. grand lay bëggee. maa ngi sant bu baax. tey yaa andi Lac de Guiers 2. andi wu ma ko de man dama andi organiser rek. gis nga organisation la andi wu ma la de. andi ah. eh, wu ma ko de ci organisation bi daal. maa ngi ci organisation. maa ngi sangaan bi. non dama leen doon wan rek fi ñu jaar affaire yooyu jeex na man si organisation la andi wu ma la. andi wu ma la de. Massa Sango amul taal la nee na andi wu leen. mbër mi daa wara a wàcc dugg mbër mi daa war a wàcc ñu ngoongu de ah jar naa lijjanti de xoolal tons tons a ngi ñaan di sotti ko Talla Ndiaye sotti na benn ñu koy sottil benn butéel sotti benn ñu koy sottil benn laga ngoo nguy ñëw de wala Talla Ndiaye xool màcca la muy sotti mbërëm li bu nduy mi màcca ngoongu ndaama la màcca yor bu téer yooyu sottim ndoxam ay màcca màcca waay màccam li bu nduy laga ngi yéeg Talla Ndiaye Talla laga nga yéeg ànd ak eh waay waay daala laga ngongu lag geera ngongu lag geera ngongu lag geera ngongu eh, am na luñ koy xëpp taala Lac de Guiers ngongu mu ngi taxaw de laga ngonguy ñëw dama ko ñaanal rek secret la man moom secret kon ci kanam dinañ xam dara man ak moom rek waaw ñaanal naa ko daal xam man bëri samay doom lool samay xarit lañu waaw ñaanal naa ko. Talla laga ngay ree lag dag yara ngay feej eh waay Talla jëlal eh waay Alioune Seye Alioune Seye oh. fay. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax. damaa gis nga dugg si gars yi mel ni dañ la xaw a yuuxu yu mel ni kii noonu lu xew. waaw xaw ma sax je sais pas peut être que moom noonu la quoi dafa am ñoo xam ni chaque fois ak ni ñu koy gisee quoi. Euh, Baye daa dugal loxoom ci combat bi wala lu xew ba tax ñu ñu def lu mel noonu jëmale ko ci moom. non xaw ma ci dara combat bi Baye promoteur la ñun ñëpp ay promoteur lañ ci ñun li ñu war mooy comme ni ko Baye defee jeune la boo xam ni tey. Euh, ñu koy intéressé mooy lu doxal sport national réewam man suma fierté la suma rakk la buy organisé ma ñëw toog jàppale ko rek. Aziz tamit dugalu ci loxoom de. non man combat bi je suis un buy seetaan si rek man gëj naa làmb ça fait six mois waaw. ana sa mbër. mi ngi këram macha allah. lu muy xaar. xam naa combat lay xaar. gars yi dañ bu fii bu dee Lac de Guiers daa daan day bëri jëg Eumeu Sène daane day bëri Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye yooyu yëpp yu doxal làmb la làmb moom combat bu ñor rek dina am incha allah waaw amul mais noo gisee ji. neex trop. bàyyi loo koy wax. di ko ñaanal rek bàyyi moom ñaan rek laa koy defal quoi. yàlla may ko réussite yàlla may ko ndam. arbitre soufflé na. Mbaye Diaw wane góos. Boy Sédoo. ngeen jàkkaar lool. Sédoo buñ ne Sédoo suñu xel di dem. Séddoo Leewtoo. Séddoo bu Leewtoo Séddu Géej. Jeeju. Séddoo yaa ngemboo ngembu Lagos bi. maa ngi koy siyaarataal bi Serigne Saliou bi. eh Séddoo Ngongo mook ay bëri. waaw waaw Séddoo. mu Pape Thialis Faye. laa faral baba. waaye kenn du Séddoo. Séddoo yaa wóor yaay bëre. Séddoo ak Mbaye Diaw. ñu ngi lewaatoo de. xeex eh Mbaye Diaw sànni na góos de. mbay jaw sànni na ko góos Mbaye Diaw sànni na ko góos Mbaye jaw lu mu bëgg a def Sédho door na ko inde lool dal na de inde Sédho doo fayu Sédho mi mbaa moom Sédho te nga bëre te xeex sol nañu ko Sodok mbay Diaw jàppante nañu ku ne sa loxo droit jàpp na waaye defanteeguñu dara mu ngay génne loxo Sodok ba moom Mbaye Diaw Mbaye Diaw el école dalit Njaga Sarr Sodok Pikine Wakhinane Wakhinane Pikine Séddo Mbaye Diaw Mbaye ngay sërxël de Mbaye Diaw ngay sërxël Séddo Séddo Mbaye Diaw bëree guñu daan na ko daan nañu séddoo Talla Ndiaye. Babacar dañ sunu waaj a séddoo. waaw ah, Babacar waru ñëw daan sama séddoo. séddoo nañ sa turandoo bi. non non non ko Mbaye Diaw na ko. Boy Lonase ngeen jàkkaar lool. doomu kër Mbaye Fall ñu wan ginnaaw. jàppantey loxo muy deuxième combat de la soirée. ñaareelu combat baa ngongu Boy Lonase en face ñu jàkkaarloog moom dóor na ñam na ko loola saf na de laa ilaaha illallah laal nañu Boy Lonase foofu de Boy Lonase Boy Lonase mbaa duñ la daan wala Boy Lonase nga koy fàq bipp muy ñëw bipp muy ñëw Boy Lonase doomu Kër Mbay Fall da daanu toog na. oh Boy Lonaas daanu na Talla Ndiaye jógal sangu daanu nga tey jàppoo karte gi carte ya baaxul tey daa jaawaloo. Talla Ndiaye Talla ñëwal ngi. ku takk nag takk mag taxani ku tuub toxu mais ku takk mag taxani. ku takk mag taxani. ku. bilaay dinaa def affaire adressé ngoo décor la yaa ma njëkk a talal micro. Euh, stade Iba Mar Diop def ci vidéo bo xam ne ñëpp a koy fuutal fecc bi ak bii bi ci may da ah ah lii neex na de nga def nii ba mu yegg nga der nii <laughs> mais ci loolu maa ngi nii rek Alaaji Mbaye loo koy Alaaji Mbaye li ma ko wax mooy bëre la rek dañuy bëre rek mais kenn daa tag boppam nga tag sa tontu ko loo ko tontooti woon xam nga bu nekkee suma gewel bu nekkee gewel itam gewel geer bu baax day am gewel kon bu tagee bu am def moo tag mais dafa tag bu am bañ maa tag ma ne ko Alaaji Mbaye man Adama laa du nga tag ma tagguma ma ne ko kat bu ñu laal laa bokk tagguma ma tagg sama bopp ndax nag sama maam seede woon Sëñ Bamba nag loo 7 mai ci jaxaw wax dëgg fa yàlla loolu am na. tey est-ce que alaaji mi bëre yéen ñaar. waaw bëre bi côté bëre bi. tiit na ko ci wala. bëre bi ah non xam nga bëre moom bu ñu leen defee combat rek combat la def ko combat rek loolu waaw mais maa ngi ñaan yàlla am ndam quoi amini amini di nuyu waa Pikine yëpp nag ndax dafa bari ay fan si ok kontaan naa yow. sœur fois def na lu ne ci làmb. tey mu ngi toog ci buntu ci mukaayu booy ñaa wax na dëgg li nga wax lañuy def yaay suñu père ñu lay ziar. non damay bañ gaay yi xam nga rek ci mukaay li waaw. ba am nga jàmm. sant yàlla baax a baax. tey nga ëmb sa doom booy ñaa mu ñu war a jàmmarloog Lac de Guiers lu ngeen ko yebee actuellement parce que léegi arme suuf le combat bi. waaw li ñu ko yebee ànd ak yar ak i teggin li ñu ko xamee woon rek ànd disiplin discipline ak i teggin ci wolof yaakaar yàlla yaakaar yonent bi ndax yàlla mooy maye. li mu waroon def yëpp def na ko nag yàlla daal moo ci des ñu ngi ba dem nag ci géew bi waaw jërëjëf ci taala booy ñanga ngay dem fu mu jëm booya ngay dem fu mu jëm booya ngay dem fu mu jëm ngay dem de kaay taala ay layu lay génn Reg nga ma din sa micro bi. jeex na waaw. Papis bëgg naa. ñu ngi ci loolu yaa ngi si jàmm. bu ma génnee ci mboolem bi bari nekk. na tàng. bés bee ko tey kilote laa gis gisuma pantalon tey. Ah, waaw mais noonu la kopp fo boolu fonde bi foo foo moom. yàlla baax nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla. na ma ñëpp ñaanal ci barke Seydina Mohamed. troisième combat arbitre soufflé na ko armée de bu roog énergie eh gos moog soldat armée daa bëgg a baatale bëre bi xanaa armée lu mu door soldat daw na jëli ko mu bañ armée ngay xeex soldat. waaw maay soldat fayu na de soldat riposte na de armée soldat laaw na ko góos góos ñu nga ca de armée yaak soldat armée foo jëm armée soldat lewato soldat armée jël na avertissement xeex moom ay inde jàppante moom mu koy dóor ay perkit armée soldat daw na jël ko mu génn eh armée armée nga koy fàq lu mu bëgg caxabal takk mu bañ armée takk na ko da ngay daanu armée armée caxabal armée daanu nga away ah soldat daan na ko jëli bu rëy njool kenn du bëreeg moom noonu déedéet kii njool moo la sut te su ko sooboo noonu daan na ko armé mu ñëw say armé désarmé nañ ko. fay bu vocal fay Mbacke fay Mbacke fay Mbacke daanu lu xew lu xew armé lu xew nañu bërewaat ah way daan nañu fay Mbacke fay daanu na. laa ilaaha bu avocat daan na Mbacke fay taala bi Talla Ndiaye xoolal lii ni mu rafetee xool lii image Talla Ndiaye ñu ñu toogee arène bi ni mu rafetee xoolal te pourtant taxu koo fees des na ay quelques places mais bëriwul nag kon daa mel ni daal arène bi attan na lu ne waaye rafet na lii xam nga lii lii nañ ko sàmm Talla lii biisu la xoolal da ngay toog nekk à l'aise dara kenn du la gêné da seetaan mais bu ay sees bokku ci kii lay bi Modou Lo ak Balla lay bëre moo kër Balla gay mu ngay dem de mu ngay dem de taala mu ngay dem de dana leen sumbi leen mbaxana yi laa léegi lay la taala jëlal e ron ron puusal fi yow taala njaay sukku waay ah waay lamb waay taala njaay xanaa waarooti nga taala kaay nii kaay kaay kaay kaay kaay kaay la ilaha illallah taala waaruwoo taala jaaxle woo waaw lii mooy lan tey lu xew nii. Babacar lamb Babacar. Babacar xamee nga kii. mu andi woon Balla Gaye bi mu bëri mu. Babacar kon xamee nga kii Babacar.

yar non day am ndam bu soobee yàlla parce que ñun lii lañ mën àndoon nañ suñu biir ak borom ndigal di ñaan yàlla ñi ñaanal guy gi waa Canaba waa Tivaouane waa Casamance bàyyiwuma kenn yàlla na yàlla la dëgër am ndam ci kaw Boy Niang loo ko wax non li ma ko wax moom àndu la du ma la conseillé parce que moom mag ci làmb yàlla ma yàlla fay xolam may ko ndam ka bëri naag Boy Niang mais Boy Niang champion la doomu champion la mais di ñaanal yàlla rek yàlla may ko ndam du nuyu waa États-Unis ñu jàpp ñu bu baax ñoom Gambie ñoom Abdou Diouf ñoom po nañ woo Paye Mbaye Simbi nga jàpp nga jàkkaar lool ak Tidiane Faye numéro 2. ak Mbaye Simpe maa la ko wax. Mbaye Simpe ak Tidiane. ak Tidiane. Mbaye ngeen jàkkaar lool. Tidiane ak Tidiane Faye Mbaye Simpi bëre leen waay jóge fi kooku nene lañ koy wax laa ilaaha illallaah loolu mu ko dóor saf na de Tidiane xeex bi lay serse faq na ko daw na jël ko mu bañ mbay simpi mi mii mbaa mën nga simpi Tidiane Faye bëre waay ndaysaan jamono super jamono eh daan na ko wala jamono daanu nga jamono daanu nga bu yàgg a yàgg a yàgg a yàgg jamono daan nañu la daan nañu la yàgg na waa ji da daanu daanu nga. nag bu ñu seen xeex di Talla Ndiaye jàppal xeex nañu de rawaan ak bodi rawaan ak bodi rawaan ak bodi jàppante ba tar na waaye bëre leen eh, ko de loola dal de Taala Njaay loola ci la dal laa ilaaha illallah yoo dóor ba dal na boo na ko laal yu saf koy caxabal caxabal nañu la da koy tuur daan na ko eh am na ku daanu arbitre lamb ji jeexulam nga yaakaar jeexulam ah doy na waar de dañ laa dóor ba nga daanu da laa dóor bàyyi dañ tam bàyyi waay waay waay waay waay Talla Ndiaye eh Talla Ndiaye na rawan ba muy Talla Adama maame ndi sa ngi maame ndi sa ñu Adama Alaaji Mbay waay waay lii combat ngi Talla Ndiaye eh Alaaji Mbay Adama Diouf Ablaye Diop borom sum production moo ko indi doomu ndoyu Adama la moo ko indi Talla xame nga Adama waaw ñoom ñaar ku dàq fecc laay laajte. ah bokkuñu façon feccin. ah doy na war de. ah ah alaaji mën fecc lool. man ci Adama laa teg. waaye Adama nu ko neex lay fecc. Adama laa teg baaw. des fois mu naaw ba nga ngay dem mu taxaw. <laughs> looloy tag tag. des mu mel ni ku bëgg a tëddin. nga na mu taxawaat. looloy tag tag daa bëri manière Adama. xam nga tag tag. tag waaw looloy tag waaw looloy baaw. maa nga sànni wet ci kaw kat di sakkum at lu leer nga wax baaw nga mbala buy bu neex ngi ni nag mu tag combat bu gaaw laa yaakaar nag waaw xalaat naa ko de alaaji may nag na def ndànk de waaw ah, waaw lu leer Adama Diouf est-ce que umpulewul Adama fan yii rek jël na adresse final la adresse on est-ce que Adama ah, voilà arbitre sifflé na ñu ngay lewaatoo alaaji ak Adama alaaji daa bëgg a xeex da koy jël da koo bëgg a jëli de tànk ya war de da koy jël de waaye alaaji bañ na alaaji mbay bañ na alaaji bañ na de adama daa bëgg tànk taala njaay adama daa bëgg tànk adama daa bëgg tànk dalay daan daan na ko away duñu benn eh jëlel waaw eh eh waay daw waaw waaw xanaa lii mooy tàgg. waxoon naa la ko de Babacar tàggat na Alaaji. Babacar waxoon naa la ko. Alaaji kii la dàq bëre. kii dafa mën a bëree. kii li muy bëree bëree woo ko. du yoon sax. déedéet li mu jël jëloo ko. kii daa mbapat. walaay mbër kaamil la xool ko. xoolal jëlal taala eh eh waay taala déet waay ah taala déet eh eh, eh! waay ah waay ndaw Samba waay taala Njaay Adama Diouf a ngi Ada a ngi waay taala Njaay Ada kaay. suma ménage ak suma xarit dama kontaan ndax aar national dama doon refe ba refe mais per kat du yow combat bi dama lànkoon ne duma ko jël ndax dimanche ba la passé gis nga li ma adressé ngoon nga ne ma jël ko aadama jël ko bés bu la mbaam du weesu ngonka bés bés bu tey weesu fii maa ngi gërëm ñu ma jàppale man a bëgg boo gisee waa Pikine sax dañ may faral seena ngoo mu taxaw ànd ak Sokh ak Ama dañoo sotle si Boy Niang Yawou sax maa ngi koy seen Boy Baldé Moussa Balla Gaye nga ca de Moussa Balla Gaye ak Boy Balde combat bi nar naa yàgg de mi-temps ah oui taala arba suuf le waat na de mi-temps nañu de ñëwaat taxaw ko ah musaa Moussa Balla Gaye daan na ko loolu nga waroon a yàgg a def da war a yàgg a xeex waaye di di jaa jaa lii doy na waar. bene leket bu ndaw la tan booy ñaari sotte ko ñuy daje xool leen daala xoolal ñaar ñi xoolal ñaari mbër yi mu ngay dem di ko. Boy Niang Lac de Guiers numéro 2 fonde bi noo koy def tey Boy Niang ndax Lac day naan Lac nee na ko déedéet naanuma fonde duma ko naan waa Pikine seen doom a ngi Boy Niang eh tali bu mag tali bu bees i ko taaf lépp ci Pikine ba ginnaaw raay waaye géej way am na li ma laay am na njaareem am na tamit marché bu bees waaye am na amo yi lépp ci géej waay seen doom a ngi ana waa Gunaas ay Talla Ndiaye ñuy naa ñëpp Talla Ndiaye waa France waa états sama doomu nday Youssou Ndoye ca États-Unis nuyu naa ko Talla Ndiaye ak sunu yaay ja sunu yaay Penda Diawara du mën a ñàkk ma koy nuyu Talla Ndiaye taala nuyu naa la ana jub seen te patar sen abdu bu yankaaw wala aliou bu nuyu naa la daf may solal abdu bu xarañ daf may solal rim kaa ku tuur borom Touba Sandaga daf may ñawal laa ilaha illallah maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam Couture daf may ñawal nuyu naa ñëpp Talla Ndiaye waaye duma mën a fàtte sama waa dëkk nag ak yaay fa laa dëkk nuyu naa waa ak yaay rawatina sama maire commune maître Pape Sène maa ngi lay nuyu di nuyu waa Ndondol yëpp eh Talla Ndiaye ngi ñu ngay seet ñaari mbër di bi yow lay waxal lak wii wala dañ koy woo wala xew eh Lac de booy na nga ngay kàbbar Talla Ndiaye wàllug teel la olof yàgg na la ko wax Talla Ndiaye série Lébu ku ñëw ci pind bi nga yem Talla Ndiaye ci Leewtoo TV la Babacar ay wax Talla ay filmé eh Modou Mané dawal. nuyu nañ suñu DG Pape Thialis Faye. Lac de Guiers am na benn avertissement. Lac de Guiers jël na avertissement waaw loolu leer na DG Thialis ñu ngi lay nuyu monsieur Diaw Aïda Diouf nuyu nañ la tooy yëpp daal arbitre soufflé na ñu ngay lewaatoo lu may doon jaay day lamb tey Lac de Guiers la tombé Papa Sow la tombé na Yaxya Diop Yékini eh Lac de foo jëm boo génne ñu dagg sa xaalis. loolu yoon da koy tere dañ koy dagg Talla Ndiaye buteelam lay jëli sotte ko na ko sànni na buteel ba Talla xool picc yi Talla élection bi nañu ñëw lépp daa war a leer fii tey bëgguñu lëndëm ak Leewtoo TV e eh, du mën a ñàkk jub seen capatar seen sama rakk la sama doom maa ngi koy nuyu laa ilaha illallah mbër yaa ngi ci giw bi Serigne Ndiour borom Italie Ndongo Fall Italie Mbacke Kebe Italie Cissé ca Brésil moo jiite fan si club Leewtoo Cissé Brésil doomu ndeyu général Malika waaye fan si club 100 pour 100 Babacar bi nuyu naa leen du ma leen fàtte ñoom kodi ñaari mbër yaa ngi lewaatoo kodi ñu ngay lewaatoo bu leen ko jaawale ali bu yanka bul jaawale lii ñaari mbër yaa ngi di lewaatoo ci Leewtoo TV la ñuy lewaatoo songo bëree am wala luy am ee eh, Talla Ndiaye yàgg naa la koo wax walluk teen la ndeysaan la tegeer pied gauche garde normal Boy Niang pied droite fausse garde la tegeer lu noir wala sax bleu foncé waaye toccal koog lu weex ca ginnaaw Boy Niang ngembam daa marron mu jiital ki saar bu noir takk ca bopp ba ay dàkk waa ndigale mu takk cay sengoor loxo droit ba it bëri nay sengoor aatu daa réeréen ndax day feeñ tey waa géejo way laga di bëre Pikine Boy Niang ngi di bëre eh làmb Boy Niang loo bëgg dem wala loo bëgg Boy Niang dem wala lan combat bi maa dundul yaakaaruma ko bu ngeen bëre ci seeni valeur cey Talla Ndiaye Talla dara xewagul de. Babacar dara xewagul. Talla dara amagul de. Babacar nga yaakaar kan moo war a dem. ah ki war a dem de suma xoolee ni ñuy bëree daa mel ni Boy Niang nga dem. waaw daa mel ne moo bëgg a dem. daa mel ni dem lay wër de. Lac day lambam da ci ànd ak patience du ko jaxase du ko jaawale waaye yéen internet bu leen jaxase bu leen jaawale nuyu naa leen soppey Leewtoo kenn du yéen yéen a ñuy may doole waaw waaw yéen lebru woon yéen day ñaaw fu nu yegg yéen a Talla Ndiaye Boy Niang de Gaulle Lac Ali fii ci Leewtoo TV e eh, combat ngi combat ngi combat ngi ay tëggal foo dem yaa ngi fay def lu baax Boy Niang gëdd na ko de Lac daa dóor Boy Niang fayu gëdd ko waaw waaw gëddante nañu ciy korosé gëddante ci korosé Lac foo jëm Boy Niang jël na ko Lac aku ko da doon jëli waaye yeggul da doon jëli waaye yeggul da doon jëli waaye mu ngay jàpp faq faq na ko mu bañ Boy Niang loxo droitam ba jàpp na fu dëgër waa la mu tee bari na de Lac de la mu tee bari na léegi lu fit des bëre Talla Ndiaye jàppante nañu de Boy Niang da koo ndengeeñ waa boppale rëx ca mbagg ma laa ilaha illallah ñoo nga ca isa boo ma seen fa mbër maa ngi waa Issa Booma seen seen mbërë ngi Boy Niang Lamine Booma Sène seen mbërë ngi Boy Niang waaye Awa Diop sa mbërë ngi Lac de Guiers numéro 2 waaw waaw ngi nii di bëre de laa ilaaha illallah ne ngeen ñante saxal ko ba mu sax mu nga ca de taala yokkal safum taala dama bëgg lu leer taala Njaay Babacar yokku naa sama sum Babacar a ah, na yokkoo yokku ami Sidibé son a ah, nuyu naa la madame Sidibé di sa borom kër Cheikh Sidibé sama xarit la ami dañoo yàgg madame Sidibé nuyu naa la kenn du kooku Ami Sidibé jigéen ju baax wallaay mooy Ami Sidibé Ami Dia madame Sidibé nu nga jàppantalee nu nga jàppantalee jàppante ba tar na foofu de hypercule dugagul booy na ngi koy puus ndengeñ ba amiti Lac de Guiers ndengeñ bee ko gêné waaw Babacar waxoon nga ma li ñuy wax ci signature ak li ci kéw la ak leer waxoon nga ma ko de nii nga ma ko woon Babacar nañ laa lay wax signature contrat moom lu neex waay wax waaye arbitre soufflé bu xelam dalee rek mu def li muy def. waa loolu am na de loolu de téere la kon Boy Niang mooy xale Boy Niang dinañ yaay xale kon yaa war a bëri war a bëri bi loolu la ka la daw na jëli ko de waaye jël ba baaxul jëli boobu baaxul. tali ba baaxul ñoo nga ca de nga ca de jàppanteeti nañu de taala mi taa nañu ba ñëw ñoom ñaar daa mel ni li gars yi doon xalaat est-ce que amul booyal nañu fourne ba de. Baba Babacar li gars yi doon xalaat dafa mel ne am na. booyal nañu fourne ba de. boobu ba léegi ñu ngi leen koy wax ñu ne loolu du am mais tey. ah mel ni dañoo bëgg a teg bara. ah doy na waar de. xaw ma dañuy xel leen déet. Ah, loolu moom benn amateur du ci ànd. na xaaruñu fi attaaya ñu. <laughs> daa am lu sama xel di dem. damaa naan lu attaaya taalañ. ah doy na war de. Baba nañu bëri te ñu jóge fi ñibbi. ah loolu de moo yoon wax dëgg yàlla. ñi ma gis daa mel ni booyal nañu fourne ba ba yëpp. weer a ngi nii ñuy xaar ah, combat. Ndiaye def na li ko waroon de. ah tamit. Alburax Events def na li ko war. organisateurs yi def nañ ñi leen war sponsors yi noonu amateurs yi noonu journalistes yi noonu tëggkat yi noonu waykat yi noonu sécurité bi noonu kon nag yéen ñaar a des ba leen jóg si waay xoolal lii waa lii nag moom lii moom. ne bu amaatee benn avertissement ñàkk combat bi waaw waaw. góos ñamaat na ko góos. daw na jël ko mu génne ko. sàcc na ko mu génne ko. sàcc na ko mu génne ko. mu nga roofoo ca kaw. mu ngi koy faqat. caxabal door mu bañ. caxabal mu. Lac de Guiers 2 jàpp na Boy Niang jàpp na ce que jël mënta am fii nga yaakaar jël lu du am fii Talla Ndiaye Talla mbaa jël du am fii Boy Niang tey nga moytu lay dajale boot na ko takk na ko laa ilaaha illallah Lac de Guiers 2 takk na Boy Niang Boy Niang ak Lac Lac Boy Niang na ko Lac de Guiers na ko Lac de Guiers na ko de Lac de Guiers daan na ko Talla Ndiaye Lac de Guiers daan na ko Lac de na ko arbitre ba noon na arbitre bu fisina bu bi xaw ma lu tax mu atte kon comme jël amul moom na atte warta am sama gis-gis dan na Talla Ndiaye temps day jeex cinq avertissement cinq avertissement temps jeex na arbitre na combat bi Talla Ndiaye lii gàcce la Talla Ndiaye lii rafetul lii neexul waaye ñii ñii ñii Talla lii. ba pare ba gën a métti ah. dafa daanu ku nekk gaañu ci. waaw dem di dem ci moom piis arbitre bi. waaw du yoon mais li yaay waxit dafa daanu barki Seydina Mouhamed bu fekkee ma dëgg ma am dara lamb mais li ñu yor en responsable andi noo jàngate combat bi fi mu mujjee ah combat bi ni la mënoon demee ko si kawam képp na si kawam dafa toog na xam naa xam naa arbitre dafa juum kon da ngeen jàpp ne daa daan no daan na na daan na am ngeen preuve am ngeen preuve non am nañ woo nañu kii nañ ko isim sob nañ ko daan na daan mu leer mais arbitre day juum arbitre nit la léegi su leen incha allah ñu def recours mu jeex. booy ñaax loo wax noonu nga la fiy yem. nee naa lan laa la waxoon nee naa woon naa la fi lay yem. billahi wallahi wa taalaahi. booy ñaax du mbër. am na xaalis yoo xamante ni gor waru koo lekk. ñëw di tendeefal fii. la da guerre mu ne mag la doo ñëw dox si kawam yaa bëgg a yéeg doo ñëw dox si kawam du ma. ba pare arbitre tamit dama mel ne daa saa ci combat am noonu dugg ma Pikine Balla Gaye 100 pour 100 la lu may teg lu nekk ci Balla Gaye laa koy teg sa waay. bu baax man yow laa koy laaj arbitre bi sifflé na bi sifflé na mais arbitre bi lu muy lu muy lu muy lu muy sifflé man laaj de loolu xanaa arbitre ngeen koy laaj waaw lu tax muy sifflé parce xanaa bu sifflé xëy na jàpp ne jël am na est-ce laaj ay sisam ñu ne jël la am mais mais mais ñëpp xam nañ ne teg na fees ah, yoon a ngi fi n waay bi nag tey yàlla def na loo xam maanaam tey boog dama naan arène bi parce que fees na parce que fees na ndax kan Lac de Guiers Boy Niang li am ba des nag mooy ñoom ñaari mbër yi bëree nañu consigne kenn ci ñoom ñaar bëggu la ñàkk combat bi avertissement am na waaye ci biir aw lamb ji nag arbitre bi boo xoolee moo ci avantage nii mu jeexee nii parce que booy Niang comme dañ na xale la yaakaaroon nañ ne bu ñëwee dana battre bëre bi bëre fi jóge fi noo ñu na ca la ñuy yem ñu sotti ñu ne ca la ñuy yem ñu boyal ñu ne ca la ñuy yem ñu teg attaaya ñu ne xaar dina ñor ak du ñor ñu xelli taala jox nañ ñu